asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki réew mi mbokki Sénégal euh, ñu ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp tey nag dañoo ñëw di yëkkati benn message boo xam ne ñu ko jëmale ci euh, euh, opération bi nga xamee ne tey moom lañ xëyee ci réew mi muy boo xam ne ñëpp ko soxla ñëpp ko yittewoo ndax loolu képp ku di nekk doomu aadama rek yittewoo nga ko waxuma la doomu aadama waaye sax bàyyi may sax yittewoo nañ lu mel noonu te loolu mooy ak cet xam ngeen ne ci lépp lu baax lépp lu doomu aadama dund rek cet euh, maanaam da caa soxla ak cet ba ci environnement bi sax dañoo soxla ak cet garab yi nañ ko lépp nañ ko kon nag tey bi xëyee gis ne son excellence président de la république dafa def lancement boobu muy lancement set setal ba pare jiitu ja ah ñu ne kon loolu en tant que waa AIS di kuréel boole tarix yi nekk Sénégal danañ saluer initiative bu noble boobu danañ ko rafetlu te ñun képp ku ñu xam-xam ne réew mi lépp loo xam ne ñi ko yëkëti bu fekkee lu jaarut yoon la moo xam ci diine la wala ci wàllu politique ñun dañ ci addu suñu kàddu yaakaar naa ñëpp miin nañ ci lu mel noonu kon bu fekkee ne nit ki saa su ne da nga yëkk sa kàddu ci loo xam ne xëy na nga gis ne xëy na li jaarut yoon boo demee ba gis loo xam ne ne jaar na yoon te muy set setal gi nga xam président woote na ko wax dëgg yàlla loolu war nga yëkk sa kàddu rafetlu ko ndax rafetlu ko soññe la ndax set setal moom dafa nekk mbir boo xam ne dara politique mënu ci dugg ndax loo xam ne boo sa kër bu setee yow la bundu kër bu setee yow la penc bu setee yow la Euh, réew mi bu setee yow euh, yaa ko jëriñoo kon loolu yaakaar naa ne daray loo xam ne war nañoo wax ne lii kat mooy war a gàllankoor ba nit du wala ba nit du ca wax wala ba nit du ko def loolu damay jàpp ne xëy na ñàkk xam lay doon moo tax ñun ay biñu gisee ne euh, set googu ñun la njëkk a arrangé ñun waa tey jii kenn ku ne wax di gàll sa kër yaa ngi koy defar waaye booy génn ci mbedd mi rek yem ci ay eaux usées wala nga yem ci ay salté bu defee di taf sa di taf sa kanam wala yëg sa vitre de verre ou voiture loolu lépp gis nañ ne war naa mën a ñàkk bu fekkee ne cet am na mbedd yi set na lépp set na kon nag loolu bu amee président jiitu ji tey jii réew mépp ne xëy maire yi xëy ba Touba tey ñu xëy def Tiwaawoon wër na nag Kaolack dëkk yëpp def ko noonu ñun nag wax dëgg yàlla en tant que ñu yëngut ci wàllu diine di yëngu ci wàllu sensibilisation ak bennoo ak lépp li defar réew mi buñ gisee lu mel nii dana yëg suñu kàddu rafetlu ko di wax ne ñi ngi ñi ngi saluer initiative président de la République jël loolu nag ñi ci soññ ñëpp di ci soññ yëpp di ci soññ imam yëpp di ci ñëpp xam leen ne eh, jàkka yi sax war nañ ci xutba pour message boobu gën a jàll ñu xam ne al nadafatu min iman set dafa bokk ci ngëm yàlla yonent sa wax na ko ne ci benn xadis ne eh, min shu'abil iman iman imatatul ada ani tariq na ci pàcc ngëm yàlla eh, fekk aw yoon luy gàllankoor lor nekk ca nga jële ko fa lor googu nag kenn ku ne xam ne lor bi ci gën a garaaw mooy mbalit mbalit ci mbedd ndax mbalit ci mbedd waxuma la dara doo jàll sa yëre mën naa tax xet gi ci jóge wala yes bi la kër xamul toll kon sax moo gën a garaaw euh, maanaam aw aw aw dëkk wala xottu bital boo fekk ci boo fekk ci aw donc yenn sens nee na kon bokk na ci ngëm yàlla kon jëlee luy lore ci mbedd nga jële ko ci mbedd nit ñi mën a jàll nee na loo bokk ci ngëm yàlla yenn sens dem na ba bis sax mu wax ne yàlla su borom subhanahu wa gaaral na ma payuk sama sama xeet wii gaaral na ma ne ma xoolal nee na waaye ba ma yëree gis naa ca euh, fay yi ci gën a rëy mooy koo xam ne daa fekk ci biir jàkka mbalit mu génn ko ci te mbalit ku génn jàkk wax yéen doo ko teg jàkk doo ko teg kon dang ko yóbbu ba fa malik may nek ngir mu joge fo fep donc yenn chance neena gis na ne koko yolam reyna kon le tet gi president de la république wote l'islam moo ko njëkk wote waaye ndokk yàlla moom bi nga xamé ne mom lañ dekk rew mi mu jël initiative bu rafet bu melni euh ba par jiitu ja wax deug yalla non ñu en tant que waa ñu koy salier bu baaxa baax baax di salier ministre yi and ak mom yépp rawat na ministre bi nga xam moom la dénk walu mel mu Abdou Karim Fofana ak ñi ko àndal ñëpp wax deug yalla waa ñi ngi leen saliyee tey soññi askan wi ñëpp jug xam du mbirum politique mbirum cet la te ñun lay njëkk jariñ ndax bu sa buntu kër setee yow lay jariñ bu sa mbedd mi setee yow lay jariñ xëy na sax ka la koy digal doo fa jaar kon daal AES ñi ba sax ci ñun rek ñu xam ne da suñu réew daa war a set mbedd mi daa war a set dana dem ba sax jikko yi mën na faa jaare set lépp mën na faa jaare set ndax réew yi nga xam dañoo avancé yépp ci wàllu seen démocratie dëgër seen seen lépp dëgër euh, seen seen gaaw boo gisee réew yëpp dañoo set kon damay wax ne des fois lii fa li gàllankoor suñu réew yu mel nii sax mooy ñàkk set gi ndax set bu setut sam xel day nax te xel bu naxee mënut a xalaat kon jàpp nañ ne lii président woote buñ ci jaaree ba réew mi set mën naa indi développement bu rëy a rëy ci réew mi lii daal la ay doon soññee di ndokkeel président dara di ndokkeel ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala